li ma ci bëggoon ajouter mooy que école Cité Senghor bi ma nekk man dafa jàngale leen couper ndox couper leen courant. case des tout petits bi nga xam ni les moins de six ans ñoo fa nekk dañ leen couper ndox dañ leen couper courant yooyu loolu mën ngeen dem ngeen vérifier et que loolu moo am Thiès yëpp partout à Thiès c'est comme ça mais damay laajte donc mairie bi nga xam ni mënatul fay euh, courant école yi mënatul fay courant case de santé yi mënatul fay ndoxu case de santé mënatul fay ndoxu école. mënatul ramasser ordure man damay fay 2000 par mois pour ñu ramasser ordure sa loolu c'est valable pour tout Thiessois keroog maa ngi amusé wu di ko calculer ça fait presque ay deux cent et quelques mille si si bi ci ci session bële passé maanaam cinquant ans yële passé chaque ménage insidieusement retiré nañ ko deux cent et parce que ñu ngi fay ordure chaque mois mille cinq cent deux mille francs vous trouvez que ça c'est juste ça c'est normal alors que les gens ñu ngi am ay tax di jël yëpp mais amul lenn lu ñu def ci dëkk bi lu dul ay déguerpissement mais déguerpissement c'est bien mais qu'est-ce que tu proposes après lan nga fa teg rien du tout ti les les gens errer ñi doon am seen gagne-pain foofu amatuñ dara loolu c'est pas une politique sax donc mu nous demandons vraiment au président mu ñëw gëstu mairie yi ensuite les fonds de dotation les fournitures je suis précis là-dedans fourniture école Demba Diakhaté li ñu déclaré ak li ñu joxe c'est faux c'est absolument faux ils ont détourné sax il y des maires yoo xam ne defaguñ fi trois ans ils deux villa vous trouvez que ça c'est juste des maires li ñu waroon jox les aides aux aides sociales budget aide sociale bi nekk ay million dañuy joxe ay neuf cent mille wala huit cent mille li ci des ñu détourné ko Ça, c'est pas juste et c'est ça qu'ils font. Et que la population n'est pas au courant de ça parce que la population est mal informée. Mais si leur, à l'heure venue, je donnerai les preuves de mes allégations. Mais vous, vous, vous journalistes, allez-y, allez, vers le, sur le terrain, vous allez vérifier vous-même ce que je suis en train de dire. Comment Non, mais parce que maire bi fi nekk maire yi fi nekk ñoom seen bopp lañ nekkal. non je demande bonne réalisation lañ fi def Thiès-Est ce que Pape Diop a fait à Thiès-Est ça je demande moi mënul ramasser eau dure mënul fay électricité mënul fay ndox ci case de santé mais qu'est-ce qu'il peut faire lui loolu laay laajtee. Euh, non c'est pour déplorer d'abord cette situation Moi, dans mon école, c'était l'école d'Emba on a, on, a, on, nous a mis, on nous a amené une facture de presque 100 et quelques mille en électricité. Qu'est-ce qui va se passer On va cotiser. La population va encore cotiser pour payer la facture. Et ça, c'est injuste. Nous avons une mairie, il y a des taxes. Euh, ils, sont, ils sont en train de déguerpir les gens, ils sont en train de, de, de, de prendre des taxes et ils ne peuvent pas honorer leur engagement. Les ordures ménagères sont, ne sont pas ramassées par la mairie. la population elle-même, c'est la population elle-même qui paye 1500 à 2000 francs par mois avec des charrettes qui ramassent quotidiennement les ordures ménagères. Ça, vous pouvez en être témoin. Tout le monde voit cela. Euh, au niveau de, de, de l'éclairage de, de, public, vous avez vu que les mairies là, au niveau de Darussalam, de Cité Senghor, il y a des quartiers où c'est vraiment le noir à partir de 19h. Vous ne pouvez plus sortir. Mais où est, où est la mairie Où est son travail On ne voit rien sur ça.